Thank <laughs> you.

bo xamanteni ni tey kenn qu'à ko ak doomu adama la ak tumbam la ak tu nit ko xamanteni ni mérité wul dund ci àdduna muy ci li nga xamanteni ñing ko doon xamle Maïmouna Ndour dafa nekkoon au téléphone ak le ministre mais ci édition bi nga xamanteni ni génn na lundi bi nga xamanteni pas le journal dal dina koy xamle delu soir na ci li nga xamanteni moy agression bi nga xamanteni ki kii di Maïmouna Ndour fay le journaliste n'est qu'offre ci 7TV ginnaw bu mu paré émission am ak Farba Ngom bi mu invité won ki di PDG bi manam di présidente directeur général 7TV mom ci bopam moo yéeg ci kaw biroom ginnaaw bu mu recevoir benn appelu benn ministre de l'urbanisme di Abdoulaye Sow occupé wu lii nga xamante ni moom la promettre daal di koy rappeler ECHO nag mi ngi ñuy xamal ni que daal re rambobine bi dafa sukkandiku jëmale ko ci fin bi nga xamante ni a Ndour fay rappelé na kii nga xamante ni mooy Abdoulaye Seydou Sow ginnaaw bi nga xamante ni mi ngi nekkoon ci otoom pour ñibbi foofu nga xamante ni mooy këram mu lii ak benn amitié boo xamante ni depuis lu ëpp fukki at ak juróom la daal na mettre li nga xamante ni ñoom ñaar ñi daal di discuter jëmale ko ci ay réponses yi nga xamante ni Farba Ngom joxe na ko ci diiru 3 heures 18 minutes foofa ca Abdoulaye saw ak Maymouna Ndour fay ginnaaw bi ñu nekkee ci cri au téléphone si la Maymouna Ndour fay daal di yuuxu daal di yuuxu benn nit nag boo xamante ni dafa sol capuche bu weex moo ñëw attaqué li nga xamante ni mooy Maymouna Ndour Faye yor yoroon ben paaka ginnaw loolu nak ki di ministre de l'urbanisme si la comprendre que ki nga xamanteni mi ngi don wax ak mom ci téléphone mi ngi poser wu ay question dal di poursuivre li nga xamanteni moy journal bi nga xamanteni mettre na en place li di réponse yi nga xamanteni tay tey suñ si sukkandikoo yuuxu yi nga xamanteni may mëna Ndour fay amal nako biñ koy attaquer bobu mi ngi nekkoon ak téléphone ak kii nga xamanteni moy mooy xaritam di ministre Abdoulaye Seydou Sow bi nga xamanteni sen amitié datana lu tollu ci fukki at ak juróom ci loolu nak la raccrocher téléphone bi ginnaw loolu nak si la appeler ñi nga xamanteni moy ay xarit itam en commun d'abord avant tout la Khalat ki nga xamante moy Modou Awa Ndiaye ci biir sang boobu nag la Maïmouna Ndour Fay dund li nga xamante moy mooy véritable calvaire kon ñi daan naan Maïmouna Ndour Fay da doon wax ak ben ministre ban ministre la bi mu nekkee émission ak Farbangom le la ko nga xamante moy mooy Abdoulaye Seydou Sow woo comme mi ngi newoon ci émission la ko ne su paree dina ko rappelé bi mu paree dugg ci otoom nag di ñibbi si la ko doon wo ci bir loolu nak la ko kika ko agressé daal di attaquer si le yuuxu Abdoulaye Seydou Sow nak si le profito xam na ne que li du jàmm mu daal di woo ñeneen Thank <laughs> you.